waaw asalaamaaleykum mbokki internaute di Diégo Parle Foot nuyu naa leen ziar leen di wax képp koo xamante ne gan nga ci suñu chaîne bi duñu la wax lenn lu dul nga abonné te activé cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal di nga bokk ci ñu koy njëkk a gis wéy di like di commenter ak a partager loolu ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax donc dañuy revenir ci list bi si Cissé je pense que ni ñu bari euh, wuñ ko parce que coupure de d' internet bi amoon fii ci Sénégal. et que pour ñi ñi ko gisul won en résumé liste bi Aliou djéné mën nañu wax liste bu incohérente la parce que ben 3 3 latéraux gauche ñu ngi ci ñaar 6 milieux défensifs yo xamante ñom ñoo bokk même profil donc ci ci même moment bobu nonu ya ngi bayyi ay joueurs yo xamante mën nañ la apporter dara ku ci melni Soufiane Diop ah ci moment bi ngay wax que ne du daw ci ben bind sunu yaa ngi woo ay joueurs yoo xamante ne aujourd'hui ñoo bokk profil te duñ la mën a apporter lu bari ci sa secteur offensif kon nga woo benn Sofiane Diop boo xamante ne milieu offensif la boo xamante ne aujourd'hui euh, capable na dugal ay bi def ay passes décisives donc casser des lignes donc euh, décante situation bi à tout moment nga woo kooku noonu moom moo gën ngay woo ay six mille milieu défensif boo xamante ne yoo xamante ne ñoo bokk profil donc je pense que ne Aliou Cissé encore une fois euh, essuyer sur ces soies vraiment soies incohérent donc vraiment man euh, comprendre ma et que man bëgg une explication à Cissé jox ma ko ci ci ci ni ni ni muy euh, ak critères yi def actuellement ni de quoi choisir ay jour la leneen la wéy di la